asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw ba nu santee yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di nu defal jàmm fu nu mën a nekk dellu siwaat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax Tanime TV naa moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Dekko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci waa APR wala waa Benno Yaakaar ci seen ndaje mi nga xam ne dañu ci doon fal ki nga xam ne mooy seen candidat muy Amadou Ba ci teewaayu président Macky sàll ak ay responsable yu bari ku mel ni Aminata Mbengue njaay ak ku mel ni kii nga xam ne moo di Moustapha Niass man nag seetlu naa kii bi yaakaar naa ne a sedd déglu naa ci lu bari ginnaaw bi sax am na ci lu ma raw ndax booba Cheikh Bara Ndiaye moo tàmbali ma doon dem di ko seetaan ndax bañ actualité Cheikh Bara ndax waxam jàpp naa ne la ma ca mën a jëlee mënuma koo jëlee ci Benno Bokk Yaakaar moo taxoon ma seetaan ko après ci laa ñëwaat concentré waat waaye ba bi ñuy ubbi rek ba bi ñuy tëj ñaar yooyu dara rawuma ci bi ñuy tàmbali ci fàllaxeeg naas yi yëpp ba nam demee yëpp <laughs> yëpp rek seetaan naa ko waaye gis naa ci ay yoo xamante daal xam naa ne dëgg-dëgg boo seetloo. xam ne ñii yor ñii toog nii yërëmunu askan wi faalewuñ leen yëgunu leen xamunu lan lan bëgg xamunu lan lan bañ seeni bëgg-bëgg daal lan topp ñoom la ñuy jaamu guddi ak seeni eh, daraja ak seeni eh, bin mais du Sénégal moo tax moo leen tax a jóg ndax boo seetloo ndaje mi dinga gis ne dëgg-dëgg fi réew mi toll actuellement fi mu toll nga xam ne xale yu baree bari ñu ngi wuti géej gi ñiy faatu nan ci kenn xamul nu mu toll euh, barki mu ñuy wax ay liir yoo xamante ni benn jigéen moo leen dajale ba ñu bari ñenn ñi am te ñu ñàkk seen bakkan dund gi metti ndax mënu leen supporter ak yor ba lu kii nga xam ne maanaam nit ñi ni ñuy dunde sax pour ñoom nu réglementé leen ko di leen surveiller di xool lan mooy ci kii loolu kenn xamul nga gis fan yi Ousmane Sonko ñaari six yoo xamante ni nee na kii nee na nan ko delloo ci list bi kii nee na nan ko jox ay fiiseem waaye yooyu yëpp ànd ak yooyu yëpp gisoo ci dara luñ def nga yëgaat fii ci kii bi bi ñuy tàmbalee waaye yàlla nag ku jar a bàyyi la président sax li mu jeexale ay kàddoom dane nguur yàllaa koy joxe man ngaa dem wuti waaye nan bàyyi xel na nguur yàllaa koy joxe yàlla mi nga xam ne bi ngeen di tàmbali da ngeen doon ñaan ci saaram yu sell yu mag yooyu nga xam ne mooy jàng fatiha fàllaxi naasi bi waxtu julli yi jotee julliwu leen kooku ndax nit mën naa def loolu ba noppi di yaakaar yàlla jox ko nguur mën naa def loolu ba noppi yàlla di ko jox nguur ñaan yàlla bi ngay tàmbali mu defal la ko ci nga tàmbali ci bisimilah àggale ci alhamdulilah nga tardé ñaari waxtoom yoo xamante ni moo waxoon ne inna salaata tanha anil faxsaa wal munkar inna salaata kaanat alal na kitaaban mawxoot loolu nag xañ na du fi mbañ sax ndax dañ ko gis ci ndaje yi diine yi ñu ni tudd ay kilifa yi diine waaye nag ànd ak loole lépp jàpp naa ne koo xamante ni yaa ngi ñaan nguur te kenn yor nguur jàpp naa ne boo koy ñaan war nga lim la ñaan moom nga defal ko ko mooy nga jaamu ko war nga koo fàttali ko waaye diggante woykat tëggkat fecckat yépp lañ indi géwél yi daanaka benn géwél bu das nga yëg ci biir ndaje ma far ba nam fa amee doole gur gur géwél yépp ku ci mu jox la ci ay minutes te minutes yooy sax gis ngeen ne moo leen ko jox mais kenn joxu leen ko ñoom ñëpp moo dikk won leen ne ñi sama mbokk la ak ndaje mi maa fi am responsabilité boo xamante ni ñii fi nekk keneen ku dul Macky Sall amoo ko fi gurguru leen ku ci nekk wax say kàddu nga xam ne ñii fàtte nan sax askan wi waaye jëm mi président li nga fi def lii daw na yaram nga gis saale bi mi doon wax Ousmane Sonko dafa amut géwal Xaadim Samb mi doon wax nu mu tuddati lii ko jox kuy saaga président yooyu yëpp sëñ bi nga gis peex di joxoñ baaraam bi di wax yaram daw na ah, yii yëpp daal boo ko dajalee nga gisaat woykat yi ñu dajale leen benn benn la ko dale ci Pape Diouf Souleymane Faye ñoom ñëpp ñi nga xam ne daal ñoom ñëpp tàgg naan président Macky dajale leen nga xam ne ñi yëgunu askan wi sax jafe-jafe askan wi ñu woy ci wala ñu woy sax li nga xam ne moo di ay woy yoo xamante ni dina amal nit ñi benn thème boo xamante nii kii la ñuy dindi ay xaalis di baatare ci seen biir dëgg dëgg dëgg ñenn ñi nekk ci kaso bi ki ñu jàppal ne moo war a yor réew mi 2024 ñu dugal ko ci kaso bi nga gis ñu am seen salle yu luxe dem def seen seen conférence jël ko jël salle yoo xamante ni lan ca ci xaalis loolu doo leen koo bañal ndax xam nañ ne feneen fu ñu ko defee woon fu dut salle songorisé bi moom dana bari ñu jël seen ab salle kilimé ko upp salle ba jël seeni télévision yi nga xam ne ñooy rakk RTS ñu jël leen ñetti télé TFM ak euh, RTS 2 DSTV yëpp ñu def ko direct loo xamante ni xañ nit ñi journalu 19 xañ leen journalu 20 kenn kii ñu ne leen Sénégal lii moo fi am njiitu réew mi mooy def nangam mooy bëgg am kum kum nu fi bàyyil kooku nag lan lan war a ngeen war a déglu war ko xam nga gis ci biir ndaje mi sax dangay ngay xool président sax mook amatu Ba ñoo toog. waaye ndaje mu toll noonu tëgg am fa fecc woy fa ñu nekk fa yeneen ay imaam jóg fa waaye benn yoon boo gis ñu sëgg déyante reyante <laughs> daanaka seetluwoo ko ci ba ci fin bi nga gis amadu ñëw jox ko loxo bi muy def discours naa ko président nga baal ma maa ngi gërëm sant Marème Faye ku baax la lim ma digal lépp dinaa ko def dëgg dëgg dangay mujj nag nga mujj loolu xale yi wax da waaru ba ànd ak lii lépp li ci sénégalais yi war a xame dégg naa Aminata wax ne nga xam ne moom ma nga yor yal na ko yàlla may wér waaye ma nga yor ab donkam yaram woo xam ne ca lay doxe Moustapha jox ñas mënta taxaw pour wax ñii ñoo toog di nu tànnal ak di wax ne Aminata Mbengue nee na président mag man fi ma nekk dinaa fexe li nu war a def mooy naxanteeg nit ñi ba nu wooteel nu waaw yéen i tamit yéen ñii ci ginnaaw biti naxante leen ba bu leen leen wooteel rek li ngeen di def daal naxante leen ba. la Youssou Ndour waxoon ku leen jox xaalis lekk leen ndax xaalis bi xaalisu Sénégal waaye fexe leen ba bu ngeen duggee ca mbañ gàcc ga bu leen leen wooteel ngeen seet ki gën ci réew mi kii xam seeni soxla nee na bourse familiale bu fekkoon ne loolu dong la fi président ma ki def war nañ koo fay loolu ay néew doole rek la te jàpp naa ne bu fekkoon ne alalu askan wi àgg na ci askan wi bourse yooyu sax kenn du ko soxla ndax alal wala fi dañuy wax ne nit doo ko may jën waaye danga koy wan ni ni boo ko wanee nii ni nga wax ko man marché moo am prix wala moom la ñuy jënd euh, man jàpp naa ne <laughs> candidat président Macky Sall li nekku fa de yaakaar naa mooy bun jonn daal ma nekk ci àll ba di wër ak maam Boy Diaw jàpp naa ne ñooñu ñooy ñooy ñooy candidat président Macky Sall Moustapha wax na ne war nañ bis bu nekk waxtu wu nekk ñuy wax alhamdulilah président Macky Sall ñuy wax jërëjëf Macky Sall bu nu jullee bu nu def daal koo xam ne fi nga toog julli woo fa timis julli woo gee nan ngay waxe alhamdulilah saa boo jullee kon de julli timis koo gee gi moom bokku ci ànd ak loole lépp lii lépp nag nit ñi ñoo ko mën a saafaraat seen bopp ndax lii ay élection lan war a dem <coughs> élection yooyu bi ci njëkk mooy nit ñi jëli seeni carte bu élection jotee ñu sanctionné ñii fi nekk rawatina fii ci tubaa moom nii nu taxawee moom baax na moom c'est bien mooy Amadou Ba xamuñu ko xamuñu sax xam far Amadou itam xam leen ñoom ñi ngi concentré wu ak la xale ya waxoon ne ñi ngi focus deux mille vingt quatre mooy parti Pastef léegi focus deux mille vingt quatre mooy parti waaye buñ toll waa Touba moom loolu lañ focus xam naa ne xaw ma ñan ñoo leen nekkal Touba de wala ñan ñoo leen fi nekkal waaye ku mënta gañal président Macky Sall mënoo ko gañal ba mu fi toogee ba léegi boo nee Amadou ba dinaa la gañal Amadou moom bu mu bañ a ree bañ boo mu bañ a ree ndax xam naa du keeku ndax na ma ko doon waxee fii ci man fi ma dëkk ci santaane li féetewaat sama ginnaaw daanaka ëpp na sept kilomètres wala douze waaye ku fi romb sax la nga yëg ñooñu coono bi ñuy dund ci ñàkk ndox ñàkk lépp moo tax fii moom waa Tuubaa moom décision bi nga xam ne am nañ ko rek boobu rek moo am sol fexe ba bu élection yu jotee ñu teel a jóg jug six heures du matin ñu jóg dem wote ji balaa neuf jot résultat yi leer nañ résultat yi leer nañ ne Amadou Ba du fi faloo ñoom duñ ko fal ku ko mën a fal nag ëllëg xëy na baax na waaye ñoom moom duñ ko fal nan defoon ca référendum ba daal defoon ko ci <laughs> élection yi génn yi député yi defoon ko élection deux mille dix neuf yooyu daal seen taxawaay boobu daal rafet na xam nga taxawaay élection deux mille dix neuf ci la Moussa mii tey ndeysaan nekk ci kaso bi doon wax naa euh, dama doon reewee pour jéem a lalli <laughs> autoroute Ila Touba bi am benn kii xaw ma ndëraan xaw ma lu mu wax noonu euh, building pour laal autoroute ila Touba bi xanaa nag la nga yéene woon waa Touba <laughs> Moussa war nga ciy dugg de wax dëgg yàlla laal leen télé wax dëgg yàlla Touba daa am xaalis ñi fiy dikk bari ñu ne nañ ko liggéey ndax ñu teel a mën a fay kii bi waaye defuñu ko fi ngir Touba rek waa tuubaa ñooy dem Dakar ak a ñëw mbooloo mu bari di ñëw ci seen dëkk. li fiy dugg kenn xamut ci nit li fi nekk ci ay homme d'affaires li fiy dugg ci xale ñu ne buñ ko fi defee balaa dat sàngam tëli bi dina génn xaalisam loolu dong nga tax ñu def ko waaye defuñu ko fi ngir Touba euh, lan koy defal wala Touba la ñuy campagnal déedéet kon ñu ngi taxaw fii sunu hôpital bii ñu fi def nga xam na hopital bu mag bi ñoo hôpital Cheikh Khadim hôpital borom xam-xam yépp li wax tey ci yëngu ci médecine dana wax ne dëkk boo xamante ne ña fa nekk du ay kiil amunu géej amuñu ay usine ministre amuñu ko. amuñu chef de service yoo xam ne indil nañ leen tànn nañ état bi indi nu chef de service indi nu fi ministre indinu fi dara ñu indi fi hôpital boo xam ne yow boo jógoon bay xalaati dem hôpital bi rek saw fi tëris nga xam ne hôpital bi ay patron lañ ko defal yuy jóge fu sori ñu ñëw di fi noppalu wala ñoom ñoo fiy faju fii koo xamante ni ordonnance douze mille rek mënoo koo jënd cinq mille da lay të ticket yooyu yooyu boo leen defaloon ay hôpital ay dispensaire yu bare bari ci kii bi bu boobaa ci la ëpp avantage loolu boroom xam yi ñoo ko wax